tey ñu ngi ak benn champion champion bi moom sama nit la sama xarit la every time dañuy déggante ça fait des années maintenant euh, Moussa Dioum tey sa yaram tàng na tey li ma gis nga def nii ànd ceeg mbay guy gi dafa mel sa yaram dafa tàng te yaa ngi ñàkk tu es ngi forme. waaw ñuy sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur di nuyu waa parcelle 1 ba 26 di nuyu sama mbokk bool bool yi ndax tey deret ma yëngal moo tax ma ñëw fii ci mbay gi di nuyu waa Maka Baraage yëpp di nuyu tamit sama côté yaay waa Fatick ak ñëpp maa leen di nuyu di nuyu sénégalais yëpp di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak Tapha Tine dama ko laaj léegi bi mu la gisee dafa ne yaramam dafa daw parce que nee na gars yi nu ñëpp nga. non Tapha Tine ñoo bokk benn dëkk Tapha Tine même combat am ak Elton maa ngi ci ginnaaw bi muy bàkku ak yeneen i combat même sama combat ba ci ay baay ma ñoon combat yu bëri Tapha day nekk sama ginnaaw c'est que nit ñi ñoo ko gisuloon bu baax. mais sama nit la sama kii la te ba léegi nag yàlla rek moo tax may wax combat am ak Boy Niang bi ñu ngi déggante bu baax ma ko ci ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam lu leer nañ di wax waa Bawol ñu jàppale ko bu baax a baax a baax. yaa ngi ko ciy conseillé. waaw maa ngi waxtaan moom bu baax a baax bu dëgg dee dëgg. lan nga ko wax mu xeex. non kenn du dem guerre di wane say arme mais ñu ngi waxtaan ak moom parce que combat bi daf ñoo ñor lool te Boy Niang nag dafa nekk mbër moo xamante ne ni tamit ku ko xam ne soxla na combat bi mais Tapha yow gis nga ko bu baax dafa soxla combat bi trop wallahi azim. alors Moussa Dioum dañ la namm man maa la namm xoolal xoolal jaay. <laughs> lii la lii la yi namm si yow. sama yaram moo tàgg barki Seydina Mohamed may remercier sama mag sama xarit sama doomu ndey sama lépp Malick Lay Malick Lay maa ngi koy sant di ko gërëm wallahi azim amul guddi amul bëccëg noppalu ma ci dara chaque jour mu ngi may encouragé di sant tamit sama coach su maam lees ak waa parcelle mbooloo bi yëpp maa leen di sant boo far bu jar ba fa am combat yal na ko yàlla may ndam. maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax di ñaanal mbay guy gi mais lenn la lenn laa lay xamal man benn adversaire laa am. muy Malick ñaa Malick Niang nee na bu bërewul day bàyyi bëre. man maa ko jëloon maa léegi man maa ngi nii keroog stade taxaw na mu ne pare na pour bëre ak man. wallahi asim parce que beneen journaliste bi nekkoon Equivox moo ñëw ba ci man ne man Malick Niang nee na pare na pour bëre ak yow ma ne ko loolu koy sotti seeg def ci la man pare naa pour bëre ak man Malick Niang pour te dire bërew fekkuma bërelul daanu moo fu ma fa daanu. dañ nag moo tax. maa maa moom maa moom ñoo tolloo ni ñu fi gëjee. waaw mu ngi noonu nag. ñaan ñu kii la rek noo jaru kii. Ah, ah. bu fexe leen ngeen boole ñu ñu dimbali ñu balaa moo balaa moo bàyyi mu ñëwaat ci la. man maa ko jëloon mu ne ren bu amul combat du bëre. yow ma ñëw jël la. maa ngi nga bëgg kon loolu neex na. moom laay bëreel sax su ma bëreel moom damay bàyyi bëre man tamit. na ñëw ñu bëre retour de Moussa Diouf ak. Mourchou xoolal ak fii nii ci ci ci ci ci stade arène nationale bi ah ak gars yi niñ ma nambe ma ma ñëw war a wàccee foofu waa parcelle ak waa bawol ak ñëpp màkka baraage ñoo jàppale ma mbër Malick ñaa ñëwal jël avance bi Malick ñaa jëlal avance bi ñu bëree bu jëlul boo ma jëlul bàyyi bëre man tamit damay bàyyi ñëwal ñu bëre ñaar yëpp waru leen bàyyi mbër ñu bàyyi lamb daf ñu soxla yow xam nga ne lamb dafa rafle ay mbër bu dëgg dee dëgg wallaahi asim lamb dafa raf rafle ay mbër ambiance bëre xeex bëre waaw sotteeku soow daw fii xam nga yooyu dañ koo namm mën nga daan ma ko jàppee naa ko bëreloo ba mu mel ni palaatu yaasu bu tuuru ma doo koo daan <laughs>